Thomas Kouéré, j'habite à Bignona, je suis acteur, mannequin et DJ. Je suis directeur technique de l'agence de mannequinage euh, de couleur verte. Je encadre mannequin. Je euh, suis pour l'élection du Sénégal. Je encadre ici, niveau Bignona, niveau régional. Après, nous représentons la région ici au

comme le film parle de, de la maltraitance des, des, des femmes de ménage, système sama biir kër dama ko doon samay bon mais utiliser samay bon qui dit. kër. loolu dafa doon rôle bi nga xam dafa yomboon ci man quoi c'était facile c'était facile pour moi parce que mon naa wax ni dafa tom dafa doon benn jaar-jaar benn jaar-jaar jeunesse donc pour mu jouer rôle c'était pas si difficile que ça aussi. boobu ma wax loolu de waxuma ne bi dama facile ma nga parle am nañu donc c' est que rôle bi facile woon na ci man mooy forcément coureur de jupon la am séquence bi ma gën a marqué mooy euh, scène bu may wàcc mooy wàcc avion bu may jógee aéroport bi gars yi

maa xam ne entre grande sœur et samay projet dans le futur c'est continuer dans ce même continuer dans le domaine de la de du cinéma euh, yegg yegg fi nga xamante ne ñun ku ñu ku ñu dugal ci domaine bi maanaam bi dagu jaar. bëgg nañ yegg même niveau si dépassé ko xam naa loolu mooy suyoon sax saa yi samay projet loolu continuer dans la lancé et si domaine cadre film protection la juste pour dire à tout le monde actuellement ñu préparé dañuy dem euh, au niveau de Kafountine à Bénin avec euh, Tavero et à Mbour aussi mais un jeu mais jàppaguñu date exacte parce que gars yi bëri na nekk di laaj kañ la ñuy dem secteur boobu aussi toujours euh, waa tax quoi am waaw sama famille yëpp fii su ma nekk nii. Euh,

avec mon grand frère aussi. Donc ça me fait plaisir que nous disions que nous pour nous. Surtout le rôle de nous incarnons. Devenu, bon, je veux dire que ça me fait plaisir de nous voir, euh, de le voir jouer ce genre de rôle. Parce que le premier là parce qu'à chaque fois, maman a des caches que waouh, Thomas, xale jigéen ñi dañ la bëgg fi parce que chaque fois ñu koy gis xale jigéen ñi di ko ses bu ñëw fii anatoma anatoma anatoma bon moo tax bu ñu gisee film bi lancement bi ak yooyu sama yaay ne voilà kii moom dafa incarné dafa wane Thomas carrément. effectivement mu mel ci film bi. loolu mhm. la mel kii waaw ah, c'est un grand farceur. amul benn problème. wala wala lay bëgg a def kii benn problème. Eh, parce que <laughs> xale jigéen ñi noonu lañ ko bëggee daal maanaam ma siy xulo ndax loolu. gis xale jigéen ñi ñëw fii à chaque fois ana Thomas ana lii maanaam ah Thomas tey diw bii ak mais c'est juste parce que ñoom ñoo ko gis moom moo ubbee ubbee ak xale jigéen yëpp fekk ak ñëpp jàmm donc moo tax ñun tamit ñu téye ko.